ndaje mi li ko waral tiit ak jaaxle moo waral ñu fii tey lii suba def nañ ko defati ko dañoon sotuñu ko def ndax régime bi fi nekkoon def nañ ko defati ko suufu mbéy coow li ku ne dégg na ko mais président Diomaye bi ko yàlla joxe réew mi am ci moom yaakaar moo tax tey ñu defaat rassemblement bi ku ñu wax soñ soñ bu sekk moo ñëw fii jël fii deux cent hectares kii euh, vingt deux hectares na dépassé na ci 200 millions muy 9 hectares 11 hectares 2 hectares même 2 hectares rek da ko époté 160 millions lañ ko ci jox kon ben 2 hectares bo ci joxé 160 millions 22 hectares luñ ci war kon 200 millions raisonnable ci lool ñuy bëgg président Diomaye mu ñëw wax ci français bambilor dimbali askan wi ndax ñun xamuñu lu mbay ci lañu dëkk ci la ñuy bay ci lañ def ay poulailler te dëkk bi yëpp joxe nañ ko ba fii ñu taxaw nii dëkk bi boo ko léebee tey numéro titre moo ci nekk. kon ñoom ba léegi liñ ne woon ñu ko ñu bëgg président ni mu ko defee kees mu defe ko fii am nañ ci moom yaakaar réew mi am nañ ci moom yaakaar kon na ñëw régler ñu situation bii ndax bi passé kat jàpp nañ suñu ndaw ñii damm nañ leen ñii gaañ nañ leen ñii tëj nañ leen am na ñoo ba léegi ñu ngi faju te buñ fi ñëwaatee am naa njort ni ay bakkan mooy tëdd ndax ki moom ki moomul li mu ko jaral ki moom jaral na ko lopp loolu amul fu ñu demul muy le maire sous préfet préfet gouverneur kilifa ku fi nekk jooytu nañ la lii même armée li ñu am nii boo ko calculé woon tey matul 400 mètres carrés amu fi deux salles de classe lañu am troisième classe bi fii lañ koy mottalee amuñu poste de santé amuñu école amuñu dara gis na yoon bi nu mu mel jigéen ñi ku ne bu xëyee marché amuñu ko ku si nekk sa buntu ngay jaay tali bi gis nga ko bu nawetee duñ jaa dañuy yokk paas yi 200 lañ koy fay mais da ngay fay 600 pour ñëw lii dañoon dootuñu ko def ndax amatuñu woon amatuñu yaakaar président Diomaye mooy dellu si waat ñu defaat lii mais dañoon dootuñu def rassemblement mais comme que yàlla euh, jox na ko réew mi te am na ay ambition yoo xamante ni wax na ko si suuf si moo tax ñu dajawaat lii yëgal ko suñu kaddu jotali ko suñu mettit ndax mu saafaaral suñu jàngoor loolu daal moo waroon ndajem tey mi